mbokk yi yéen ngi fàttaliku suñu bunt bu mujj bu ñu taxawoon ñu ngi doon waxtaan ak yéen la nga xamante ne njëriñ ba nekk ci tudd yàlla yow jullit yow waxambaane yow xale bu jigéen bi nañ leen bokk xam ne feet bu ñu nekk di feete diine ba mu nekk diine bu matale la diine bu ñoŋ la diine bu ñu aar la diine bu ñu melale ay garde foo diine bu amul caaxaan la diine bu amul folklore la ba tax na yow mi dund diine boobu suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lam ñu fa tegtal lam ñu tegtal nag ci suñu diine bi di islaam bari na lool waaye ñu jukkil leen ci lenn ci importance su diine ba nga xamante ne ñun jullit ñi diine boobu lañuy dundu ci dundu àddina bi ñu yàlla wërsëgal nañ leen bokk xam ne diini islaam ba nga xamante ne moom la yàlla reconnaître fa moom ba mun nañu ci téere bi ne inna diina inda allahi l islaam diine ba yàlla reconnaître fa moom diine boobu de mu ngi tudd islaam moo tax mu ne inna diina inda diine ba nekk fa yàlla di diine nee na diine boobu de moo tuddu islaam kon yow jullit bay dundu diine yi islaam xamal ne yoon ba nga tënk sa bopp yoon woowu la yàlla reconnaître fa moom ne loolu mooy islaam la tax yàlla reconnaître ko fa moom comme diine nañ leen bokk dugg ci xadiisu Umar bun Xattaab radiyallahu anhu qaal baynama naxnu cinda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin istalaca calaynaa rajulan shadiidul bayaadi siyaab shadiidu sawaadi sha'r laa yura alayhi atharu safar wala yacrifuhu minna ahad xatta jalasa ila alayhi wa sallam xadis bi mbokk yi day wone importance su diini islaam bañu ñu yenentu bi andil jëlee ko fa yàlla buur bi tabaraka saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain bokkoon na seeni melokaan ñoom dañ doon fréquenté jotaayu yonent bi sallallahu alayhi wa di si taataane lañ leen di waxtaanal nii ndax si ñoom lañ ko jële si ñoom lañ ko toxale kon ñoom daanoon nañ fréquenté jotaayu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu di si taataane xam-xam ba nga xamante ne day law ba ñun ñi tey jii ñu jot si te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekkoon di dund ak saxaaba yi ak suñu jonn yàlla ji tey ñu di leen waxtaanal lenn ci xadis ba saxaabi bi génnee boo koy xayma at bi na mille cinq cent quarante ci gàddaay kon mille cinq ci gàddaay bientôt mille cinq cent quarante ndax bu ñu duggee ci tam xarit ah su ko defee dinañ dugg ci quarante sixième année bi kon waxtu bi yàgg na waaye ànd loolu dañ leen bëgg a won sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain yal leen buur yàlla gërëm ñoom ñooy àndandooro yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci jamonom ñu gëm ko ñii dee ci islaam ñii gàddaay ñii ñàkk privilège yañu nekk woon ci makka fonk diine islaam bëgg diine islaam tax na ñi seen bakken rot na ci tax na ñi gàddaay nañ seen réew ba yàlla moomee leen feneen fudul makka tax na ñi ñàkk nañ seen privilège yi nga xamante ne jamono yi yéefar loolu ñu nekkee woon kon sahaaba yi dañ doon toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di manqué ci jotaay yonent bi xam-xam boo xamante ne xeet ya war a ñëw ci mujjantelu jamono ñu mel ni ñun ca lañ ci war a mën a jot ba tax na tey réew mi fm point 5 ci waxtaanu fajar bam leen di amal ci waxtu wi ñu bëgg leen dégtal melokaanu saxaaba yi ci jotaayu yonent bi waaye dayo bu diine bi am fa yàlla dayo bu diini islaam am fa yàlla importance ba diini islaam am fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey melokaan woowu lañ leen bëgg a dégtal ci waxtaanu fajar fii ci réew mi fm 97.5 ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala yan nañu ko yàlla yombalal bañ ko faram fàcce comme nañ ko bëggee amin ya rabbal alamin xadis bañ leen jàngal ni muy xadisu ibnu umar xadiisu omar bun xataab radiallahu anhu sahaabi bi di omar bun xataab radiallahu anhu nee na baynama nahnu inda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin nee na benn bés de dañoo toogoon ci jotaayi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk ak moom wenn jotaay ñu di taataan xam-xam bam ñuy jox ñu di ko jëfe ñii di bind ñii di enregistré nee na jotaay boobu ñu toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés moo am kawtéef bu mag kawtéef bu nga xamante ne daal moo ñëw ne fang suñu ëtt boobu ñu toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne istalaa alayna rajulun gannaaw bu mu ni cëpp suñu kanam ab waay waaw dañoo toog ak yonent bi ci benn jotaay ëtt boobu ñu toog ñuy taataan xam-xam ci jotaay yonent boobu sallam ab waay ni cëpp nag waaw daldi ni faax suñu biir waa ji bokk na ci melokaanam màndargay ya Umar daldi tegtal fii nee na waa ji daal shadidun bayaadi siyab yére bu mu sol dafa weex tall weexaayu yére ba waa ji sol dafa jéggi dayo kenn mënu koo xool ba am diir di ko xool ndax sa bët di ko mën a antan tellement yére bu mu sol dafa weex tal mu teg si ne shadidu sawaadi shaar waa ji kawar bi dafa ñuul kuk ñuulaayu kawaru waa ji foo ko natt weesu na ko ci ñuulaay mu teg si ne bokk na ci màndarga bi bi léegi laa yura alayhi atharu safar munoo xàmmee ci waa ji màndargaay ki jógeekoo ci tukki munoo xàmmee ci waaji ji gay ki nekk ci yoonu tukki boo koy xool doo gis màndargaay ku nekk ci yoonu tukki te yére bu mu sol dafa weex tal kawaram nag ñuulaay bi foo ko takk weesu na ñuul kukk la te kenn mënut a xàmmee ci waa ji ni kii daa jóge ko ci yoonu tukki wala yaarifuhu minna ahadun te kenn su ñun xamul waa kon xanaa dañ doon laaj ñoomi neen mais kii mooy kan fu kii jógee ci li ko tax a fii mel nii question bu mel nii lañ doon laaj seen biir ñoomi neen moo tax mu ne wala yaarifuhu minna ahadun kenn suñun xamul waa te kenn suñun xàmmeewu ko tamit hatta jalasa ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ba waa ji toog fa yonent bi toog sallallahu alayhi wa sallam ba fa waaji toogee Omar nee na waaji dafa am leneen la mu def gannaaw bu Omar joxe màndargaay waaji joxe tegtal yamu tegtaloo ni waaji nii la mel léegi deuxième geste ba waaji di def moom la Omar bëgg a nettali nii kon nañ leen may nopp Omar radiyallahu anhu mu wax ñu deuxième geste ba waa ji doon def nee na fastanda rukubatihi fa astanda rukubatihi ila rukbatayhi wa wadaa faxizayhi ala wa wadaa kaffayhi ala faxizayhi Omar nee na waa ji dafa ñëw jël ñaari bëtu oomam yi sës ko rëkk ci bëtu oomo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa ji wa wadaa kafayhi mu jël ñaari loxoom ñaari tënk loxoom teg ko ci kaw poojam comme buy julli boo tolloowee ci taxiyaatu lillahi nooy teg sa loxo ca kaw pooji noonu la waa ji toog jël ñaari bëtu umam yi jàkkaarloo ko yonent bi sës rëkk ci butu um yonent bi jël ñaari loxoom yi teg ko ci ñaari poojam yi moom waa ji comme ku nekk ci julli booy taaya booy taaya ci julli nooy teg sa loxo ci sa ñaari pooji noonu la waa ji jël ñaari loxo loxo ndeyjoor loxo càmmoñ mu teg ko ci tënk yi boobu mu teg ko ci ñaari poojam yi wa qaal kon jàkkaarloo na ak yonent bi waaw waa ji daldi ne yaa muhammad yow muhammad axbirni anil islaam dama bëgg nga tegtal ma dama bëgg nga xibaaree ma dama bëgg nga wax ma anil islaam ci islaam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi daal di ko tontu ne ko sallallahu alayhi wa mu ne waa ji ne al islaam islaam boobu ngay laaj te nga bëgg ma tontu la moo ne an tashhada an laa ilaha illa allah danga wara a seede ci sa biir xol ne amul benn buur bu ñu war jaamu ci dëgg kulut yàlla wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa nga seede ne muhammad de yonent bi yàlla la sallallahu alayhi wa sallam ko yalla yokk mucc ak xéwal wa tuqiima salaata danga nga war a doon kuy taxawal julli ak wa tuuti zakaata da nga war a doon kuy joxe azaka ak wa tusawmu ramadan da nga war doon kuy woor weeri koor ak wa taxujjul bayti inistataata istataata ilayhi sabila da nga aji makka bu dee mën nga ko kattan baa ngi fi benn yoon bu kattan bég man-man baa ngi xaal Omar nee daf ne sadaqta dëggal nga wax nga dëgg yow Muhammad mi may laaj nga di ma tontu xaal Omar ne fa ajabna lahu ñun waa mbiram daf ñëw mujjee yiim ndax lu tax waa ji mbiram yéem waa ji moom yasaluhu wa yusaddiquhu moom moy kiy laajte te lépp lu mu laaj buñ ko ko tontu mu daal di ko déggal ah nee na waa ji kii mbiram de mbiram mbiram doy waar kii mbiram yéem na moom day laaj yonent bi lu mu laaj yonent bi bu ko yonent bi tontoo sallallahu alayhi wa mu daldi di loolu ko yonent bi tontu moo tax mu ne qaal Umar nee na fa ajabna lahu mbiru waa ji daf ñoo mujjee yiim lu tax ndax moom yasaluhu day laaj yonent bi wa yusaddiquhu bu ko yonent bi tontoo mu déggal ko qaal waa ji ne faxbir nii anil iman yow Muhammad dama bëgg nga xibaare ma ana lan muy ngëm yàlla qaal yonent bi ne waa ne an tu'minu billahi ngëm yàlla mooy nga gëm yàlla ne yàlla mooy yàlla nga wóolu ko nga gëm ko nga wéetal ko nga xam ne lii mooy li am subhaanahu wa taala da ngay gëm ne yàlla yàlla nga gëm ne yàlla kenn la nga gëm ne yàllay buur ak wa yi nga gum ne malaaka yi ay mbindaafoonu yàlla lañu ak wa kutubihi téere ya yàlla wàccee ci yonentam yi te mu dëxëñ ci lépp luy sare a jamono woowe nga gom téere yooyu ne téere ya bàyyee koo fa yàlla la ak wa rusulihi nga gëm ni yonent ya yàlla masa yónni ñépp digg lañu ya alquran nettali yàllaa leen yónni ya alquran nettaliwut yàllaa leen yónni moo tax mu ne ko woo rusulihi ak mboolem yonenti ya yàlla yónni na nga gëm ni ñépp ndawalu yàlla lañu yàllaa leen yónni alayhim afdalu salaatu wa aska taslima ak wal yowmil axir da nga war a gëm ne bés pénc bés bu mujj ci bési àddina mooy njëlbeenu bés ca àllaaxira moo tax mu ne ko wal yowmil aaxir danga nga war a gëm bés bu mujj bi nga xamante ne mooy bés bu mujj fii ci àddina mooy njëlbeenu bés ca alaxira ak wa tu'minu bil qadr da nga war a gëm ndogal xayrihi ndogal ba yiw wa sharrihi walla safaanu yiw mu doon ndogal bu naqadi waral gum ndogal ya bàyyi fa yàlla bu yàlla dogalee yiw na nga ne yiw boobu yàlla dogal fa yàlla la bàyyee ko waaye danga nga war a gëm ndogal ba tuggee ko fa yàlla muy safaanu lu baax muy mitit wala lu ñaaw da nga war a xam ne yàlla moo dogal lii nii mu mel nii wara a gëm ndogal bu neex ak bu naqadi ndogal ju baax ak safaanu lu baax li yàlla dogal ci lu baax xamal ne yàlla dogale noonu ci coobareem bu dogalee lu ñaaw tamit xamal ne yàlla dogale noonu ci coobareem xaal uhaaji nee na yonent bi sadaqta wax nga dëgg xaal waaji ba léegi mu wëy di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko faxbir ni bëgg nga xibaare anil ixsaan ana lan mooy rafetal qaal yonent bi ne ne al rafetal de mooy an tacbuda allaha ka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka yonent bi nee na waa rafetal boobu ngay laaj de mooy na nga jaamu yàlla na nekk ci xeetu jaamu yàlla ya ngay jaamu yàlla mel ni yàlla ngi lay xool di la gis jaxran bu dee sa xol munu takk loolu xamal ne yaa ngi gis yàlla jaxran waaw moo tax yonent bi nekko ko xaal yonent bi tontu waa ji ne ko an taabuda ka annaka taraahu nanga nekk ci jaamu yàlla ya ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi gis yàlla jaxaran nga di ko xool mu di la xool fa in lam takun taraahu bu dee sa xol munu takk ne yaa ngi gis yàlla fa innahu yaraaka na nga takk sa xol ne yàlla de moom mu lay gis waaw nii ngay déggi al ihsaan ci rafetal xattaa jaamu yàlla bu mel ni reyndi gàtt yonent bi baatu ixsaan rafetal bii la fa roof moom la fa dugal nee na nga rafetal ca reyndi te nga gaaw ngir nga noppale ko yow mi reyndi sa gàtt mais gàtt ba nga bëgga a reyndi mu noppale ko ci mettit kon kii mooy rahmatan lil aalamin moo tax bu ko waaje laajee mu ne ko qaal waaji ne yonent bi ne faxbir nii maa bëgg nga wax ma anil ihsaan ana lan mooy rafetal qaal yonent bi ne ko an taabuda allaha na jaamu yàlla ci xeetu jaamu yàlla bi nga munti def ka annaka taraahu mel ni yaa ngi gis yàllaa ngi nii nga di ko gis jamono bi nga nekk di jaamu ci lépp na nga suuraale jaamu yàlla bépp jamu yàlla bi ngay def na ci suuraale yàlla mel ni yaa ngi gis yàlla mu ne ko fa illam takun taraahu bu dee sa xol munu takk ne yaa ngi gis yàlla ci jaamu yàlla yooyu nga nekk di def fa innahu yaraaka na xam na sa xol jël bii mooy ne yàlla moom mu ngi lay gis sa nekkin boobu nga nekkee jamono bi ngay jaamu yàlla ci mbooleem xeetu jaamu yàlla yi nag qaal waa ji ne ko faxbir ni ani saa maa bëgg nga xibaaree ma na kañ la bis penc faxbir ni ani saa maa bëgg nga xibaaree bés pénc xaal yenentu ne waa ji ne foofu nag yenentu bi tontuwu ko waaw dakaa delloo question bi ci anam bu muy faral di jëflanteeg baat yamuy sëq ki muy waxtaanal sallallahu alayhi wa moo tax mu ne ko xaal yenentu bi ne ko mal mas'ulu anha bi a'lami min as-sa'il ah bi nga posé nii de xam naa ne de ki nga posé question bi tànnewul ki posé question bi ci bés pénc waxu ko ne xawma ko waxu ko ne yaa ko gën a xam waaye ci teggin ba yonent bi di jëflanteeg baat ba muy jëflanteeg ka muy wicci wanteel kàddu yi ni dafa daldi utiliser slogan bu toll ni mu ne ko kiy laajte génnut a xam ku muy laaj bis pinc moo tax mu ne ko mal mas'ul bi aalami mina saa'il kañu laaj de génnu ta xam dara ci bés raw kay posé question bi waaw kon fii tontu ko dakaa delloo laajt bi kon waa ji naa comprendre la ko bi tontu moo tax mu ne ko xaal waa ne ko ba léegi faxbir ni ani la amaaraatiha maa bëgg nga tegtal ma ana lan mooy màndargay bés pénc xaal bi ne ko loolu moom mën naa laa tegtal màndargay bés moo tax mu ne ko antalita ummata rabataha boo demee ba gis jamono soppeeku kilifa di jur sang wayjur du jur ka nga xamante ne doom bu demee ba doon kilifa yi wayjur na ngeen takk bagaas yi bés soriwul loolu nga dégg suñu slogan jamono yi nit yu tey ñuy wax ne njobooti njobootu kanaara la njobooti njobootu kanaara la njobootu kanaara danga leen di jiital nga topp seen ginnaaw waaw kañ yow nga war a jiitu en tant kilifa njabooti topp sa ginnaaw nga ne njabooti njobootu kanaara la danga leen di jiital nga topp seen ginnaaw moo tax duñ la jëme fu baax yonentu ne boo gisee njaboot yi di jiitu kilifa yi di topp seen ginnaaw takk leen seen bagaas xam leen ni bis pénc dégmal na waaw mu ne ko bokk na ci màndarga yi bis bu ngeen demee ba gis askan bi wa an taral xufaata al urata alata riaan shaai yatatawaluuna fi l bunyaan bu ngeen demee ba jamono tollu ñañu askan yañu xamee ñàkk bu toll ni daawuñu am dàlla ya sol maamu gaa yi nga xamante ne ñàkk tax na daawuñu am koddaay ya ñuy koddoo seen yaram bu ñu demee bi gis sàmmkat ñi ñooñu ñëw wëlbatiku ak ñi seen maam ñàkkoon daawuñu sol dàll seen ñàkk toll na àgg na be daawuñu sol yére yaramu neen lañ doon doxe tànku neen lañ doon doxe ñii doon sàmmkat yoo xamante ne daawuñu jonjog dara lu jur bu ñu demee ba ñooñu léegi ñooy rawante tabax étage ci ay immeuble xam leen ne bés pénc dégmal ci na na ngeen tekk seeni bagaas soreetul xaal gannaaw ci thumma intalaqa fa labisa maliyan góor gi daal di laxas ndànk yërëm daal di jóg ndànk waaw daldi di disparaître dem yoonam kenn gisatu ko bu mu defee loolu thumma qaal thumma qaala lii yaa Omar ginnaaw si góor gi daldi di jóg ci jotaay boobu dem yoonam Omar nee na yonent daf ne ma yaa Omar atadri manis saa'il moo ne ba xam-xam nga kan moo nekkoon dima ma poser yi qultu allahu wa rasuluhu aalam Omar nee na yonent yàlla ak yonent bi de ñoo xam waaji man xawma ma waaji de qaal Umar ne yonent bi daal di ma ne fa innahu jibril waaji de du kenn kudul jibril jibril la de ataakum yuallimukum diinakum jibril daa dikk mu ñëw ngir xamal leen seen diini islaam ba ngeen nekkee kon mbokk yi lii moy tegtal bay wone ne suñu diine islaam ba ñuy dund ci kaw suuf si du diine caaxaan lii mooy tegtal buy won ne diine islaam ba ñuy dund ci kaw suuf si wallahi képp ku ko jàppee diiney folklore danga xamul diine bi lu doon danga xamul diine bi xiima bu mu am fa yàlla xamuloo diine bi valeur bu mu am ci yàlla xamuloo diine bi valeur bu mu am ci yenentu bi diine boo xamante ne malaaka ba nekk ca malaaka yi mu nekk fa général di jibril alayhi bu dee kooku moo dikk ci bés ñëw ci yenentu bi di ko laaj mbiru diine ba jullit ñi di diine wu ci kaw suuf si kon diine boobu du diine caaxaan kon nañ leen xam suñu diine bi nañ leen ko gën a jàng na gën a leer suñu bopp ñu bañ a jàpp suñu diine diine folklore mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi ndax ñu war a joxe xibaaraa ngi nii taxaw ñu war leen jébbal leen bërëb bi Rewmi FM 97.5 lii lañ leen andil tey ngir ñu fas yéene ko wéttalante ak yéen ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala allahumma آمنا في أوتاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu